ok alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewalam yu màgg yi nga xam ne moom la ñu jagleel ca bi ci gën a màgg mooy mu boole ñu ci njabootug lislaam boole ñoog téeréem bu màgg bi nga xam ni moom la tànn ci lépp lu mës a wàcc ci kaw suuf ci xéewalam yàlla dogal na ci néegam bu tedd bi ay yoon ñu commencé fii téereb yàlla bi di ca def suñ kémtalal kattan ba ba yàlla dogal ñu koy jeexal jeexal gi mujjoon mi ngi amoon ci bis bu mujj ci weeru koor bi nga xam ne ci la ñu génn alhamdulillah ñu fas yéene dalaat beneen téere ca ab jullit dafa war a yéene ànd ak téere bi yàlla bi nga xam ni suñu boroom da koo def muy ruuxam kazalika awhayna ilayka ruuxam min amrina ñoo la wàccal alquran mu nekk ruuxu jullit ñi kon fiyeeg ruux gi dundal sa yaram mi ngi nekk ak yow yaa ngi war a ànd ak alquranul karim alquran jooju mbokk julit bokk na luñ cay gëm mooy suñu borom subhanahu wa taala bi muy wàcce suñu bay aadama ci kaw suuf daf na ko demal yàgg sa njaboot heure boo xamee ne nii yónnee naa leen yoon wu ngeen jaar pour jub fa man ittaba hudaaya fala yadillu wala yashqa wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka képp ku nangoo topp sama njub suñu borom nee na du réer ca du texee di ki woon gannaaw njub googee danaa xatal ak dundam ci àdduna allaaxira ma dekkal ko mu doon ko silmaxa ca la joxoon sunu bàyyi aadama ak njub njub googee nit ña nekk ca ba jamonoy nuux ñu daal di koy jaxase mu yónni nuux ñu jaxase waat mu yónni huut ñu jaxase mu yónni saalix summa arsalna rusuluna tatra gannaaw bu mu teggale yonent yi baba ki ci mujjoon di Isa ibnu Maryam suñu borom jox ko injil muy dëggal la ko jiitu woon ci tawraat bañ demee ba jaxase ko suñu boroom nag wàcc ci téere boo xam ni dane bii moom maa koy aaral sama bopp inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun ngeen gëm ne alxuraan ji ngeen tiim nii la ko yonent yàlla muhammad alayhi salaam doon jànge mu jële ko ci jibril alayhi salaam mu jële ko suñu boroom subhanahu wa taala muy waxi yàlla joo xam ne da ngay gëm ni dul yàlla bind yàlla ko wax ci boppam am na ay kuréel yu ñu tudde ay mu'tazila ay jahmiya ñoom dañoo gëm ni alquran kaddu geeg yépp mbindaafanu yàlla la waaye déedéet jële dee gëm ne alquran kalamullah la yàlla ko wax jibril jibril wàcce ko ni ko yàlla waxee ci dënn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran jooju bi ka suñu borom wàccee jubluwaay ba mooy mu xamal ñu la ko neex ci xam-xam ci loo xam ne dañ koo war a gëm gannaaw ba ci loo xam ne dañ koo war di jëfe borom boobu màggal ko lool looloo tax ba mu tànn weeru koor wàcce ko ca muy ngeen ji weer guddi gi mu ko wàccee sax nee na moo gën junni guddi budul moom ci noonu it bépp doomu aadama bu koy jëfee noonu la ko yàlla barkeele yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ci gën ci yéen mooy ki jàng alquran jàngale ko waaye dafa jëfandikoo man taallama alquran wa allama waxul man qaraa alquran wa aqraa waxul ni ku dem ba mën koo liir jàngal ko ko ko mën di liir wala di ko mën di tari mbokk jàng alquran ba mën koo tari benn wàll la ci alquran waaye nag nañ xam ni loolu ab cir la ca rek waaye la nga xam ne mooy xam-xamu alquran dëgg mooy nga xam lan la yàlla di wax ak yow ci ay ndigali ki tere waaye bu yemee rek ci mokkoon téere bi loolee moom xale yi am sept ans léegi dañ koy mokkal loolu ñu bàyyi ci xel kon jàng alquran mooy jàng atte yi suratul baqara bi ñu nar a dal tey dañ ni Omar ibn Khattab nee na bi muy dem ba jàpp ne maîtriser na ko jàng na ko fukki at ak ñaar doo ba mu pa ba mu paree dafa rey gileem doomam ju Abdullah ibn Omar nee na jàng na ko fukki at ba mu paree dafa rey baqara muy nag kon alquran noonu la demee suñu borom yàlla subhanahu wa taala wàcce ko ci sunu yeneen ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam daa dina ko inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xafidun non inna nahnu nazzalna zikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkarun dama wàcc ci yow téere bi ngir nga leeralal ko nit ñi sahabatul kiram daañu wër yeneen ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam lu wàcc ci alquran mu jàngal leen atte ya ca nekk ak nuñ koy war a jëfee sahaaba dañu wax naan taallamna alquran wal amala ma ah dañoo jàngal alquran jàng nuñ koy jëfe ñu ko daan del par fukki aaya par fukki aaya ba ba yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóge fi sahaaba yooyu jël téeréb yàlla bi di ca jottali lañ dégg woon ci yonent bi ak di ca wax la yàlla ubbi woon ci seeni xol ba ba ñenn ñu commencé di génne ay tafsir bokk na ca jiitu woon ku mel ni ibnu abbas mi yonente bi alayhi salaam ne mooy kan fóore xeet bi xabarul umma bokk na ci ku mel ni mujahid ab taalibeem bi nga xam ni nee na ñetti yoon toog naa koog ibnu abbas commencé ak moom fatiha baqara ba naasi aaya bu nekk taxawloo naa ko ci laaj ko mu wax ma ca ay atte ba ma def koog moom ñetti yoon loolee mbokk gannaaw boo ulama wu tafsir jël ko ya ci gënoon siiw ñoom tabari ñoom qurtubi ñoom ibnu kasir ba baa ñi nga xam ne ñooy ñi mujj a ñëw nga xam ne seeni tafsir tey tasaaroo na lu mel ni muhammadul amin shinqiti ci adorul bayan man nga cee jaar ñu mel ni ki nga xam ne mooy alxusaymin ñi nga xamee ne nii ñooy ku mel ni aljazairi ca ay suru tafasir ku mel ni ay saadi ca tey surul almanan ila axiri ñooñu ñooy ñi mujj ñëw ku nekk jamono bi nga tollool xew-xew ya ca am nga mingile ko ak téere bu yàlla bi loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee it loolu moo ñuy yóbbu ñu xam ni ñun dañoo gis ne suñu borom moo ni wa ma arsalna min min rasulin illa bi lisani qawmi li yubayina lahum bépp yonent dama koy yónn ci xeetam mu utiliser seen lammiñ ngir mu mën leen a leeralal loolu it lañ gis ne waajib la ci pulaar ya chinois ya espagnol ya kum mën a doon ña ca mën a dégg tuuti jël la nga xamee ne moom la yàlla wàcc ci téeréem jotti li ko waa xeetam bañ dégg ko seen langue loolu mbokk moo ñu tax a toog fii looloo tax xëy na du ñàkk lu ñuy yër ci ay tafsir lu romb mën na am fukk sax lañ ca gis na nag moo gën a dëppoo ak suñu jamono loolee lañ leen di tànnal indi ko di leen ko wax fii li ñuy jëkk a ñaan yàlla suñu boroom yal na yàlla wërsëgal ñu ixlaas ba lépp lu ñuy def yal na fekk yàlla rek a tax mboolem ku sol sa dàll di ñëw fii wala nga koy déglu ci ab audio yal na yàlla fekk yàlla rek a tax yal na yàlla it ubbi suñuy xol ubbi suñuy nopp ubbi suñuy làmmiñ ba lépp lu ciy dégg mu nanguloo ñu ko lépp luñ ciy njumteen mu xamloo ñu ko bañ moytu ko yàlla boole ñu ñu nekk ñoñu alquran adduna doon ñoñu alquran la nga xam ne moom mooy alaxira kon incha allah loolu ab tënk bu ndaw la ci loo xam ne ay fani fan la laaj ngir am leeral ci téere bi yàlla bi waaye temps bi du maye loolu kon dañuy bàyyi ak Cheikh Alioune mu ubbel ñu suratul fatiha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بارك الله فيك آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولو borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ndax ci fatiha la bokkam déet waaye bismillahi mooy maa ngi tàmbali ci turu yàlla lan cay jublu mooy dimbali ko ci turu yàlla arrahman mooy borom yërmande ji meloo yërmande mu nekk ci loo xam ne nii ah ca melokaanam yi kaw yàlla bokk ca mooy ki yërëm mboole mi ay jaamam arrahim moom it mooy kay def yërmande waaye nag di ko jagleel ña ko gëm adduna ak alaxira alhamdu mooy mboolem cant cant gu ànd ak tagg mi ngi noonu alhamdu assanaa wa shukru loolu lépp ñeel na kan lillahi ñeel na yàlla yàlla moomu mooy kan mooy rabbil alamin mooy boroom mbindaafani mboole seen arrahman mooy ki nga xam ni moo meloo yërmande di yërëm mboole mi jaamam arrahim mooy jagleel yërmande ña nga xam ni ñoo ko ci gëm maliki yawmi diin wala maliki yawmi diin yow mi yor xafs bi mooy buuru mooy ka moom bu dee malik mooy buur bu dee malik mooy ka moom yawmi diin bis ba nga xam ne mooy bisu fay ba di yowm alqiyaama iyaaka naabudu iyaaka mooy yow kese naabudu ñun yow la ñuy jaamu ay mboolam aalamin yàlla yow rek la ñuy jaamu wa iyaaka ca yow kese nastainu yow la ñuy dimmini ko ihdina siraata yal na ñu jubal assiraat moom mooy yoon woo xam ne dañ koo tàggat mu leer amul benn jadd amul benn pakk ci siraat almustaqim ba nga xam ne mooy bu jub jub kocc lenn loo xam ne jëng am na ca loole sirat alladina anamta alayhim yoonu ña nga xam ne da nga xiiwal ci ñoom yaa xiiwal ci ñoom gayri almaghdubi alayhim ca mu bañ a doon yoonu ña nga xam ne dañoo mere ca ñoom wala dalin wala yoonu ña nga xam ne dañoo réer bokk li mooy fatihatul kitab tudd nañ ko fatiha ndax mooy ubbi téereb yàlla bi te it mooy ubbi julli yi tudd nañ ko la nga xam ne moom mooy sala ndax yonent bi alayhi salaam daana wax ne la salaata liman lam yaqra bi ummil kitab ku jàngul fatiha amoo julli suñu yonent alayhi salaatu wasalaam it ne yàlla ko séddale digganteem ak jaamam ca mooy ñetti parti la parti bu jëkk bi yàlla ko moom parti bi ci digg bi yàlla ak jaam bee ko bokk parti bu mujj jaam bi moo ko moom dañ ko tuddee la nga xam ne mooy ummul kitaab ndax mboole mi xam-xam yi mas a wàcc ci alquran ak mboole mi xam-xam yoo xam ne dafa mas a wàcc ci téere yi ko jiitu woon yépp alquran da koo ëmb fatihatul kitab da koo ëmb te da ko ummul kitab noonu it la nekk ruqiya doon loo xam ne liy faj la looloo taxit médecine lu ay façon yu bari la am na médecine boo xam ne bu tubaab bi la bu traditionnel bi la waaye nga la way xam ne ni it alquran day faj rawatina fatiha bépp feebar bu la dal del jàng jàng fatiha di ca ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wéral la mbokk fatiha kon mi ngi noonu bu ñu la laajoon alquran ñaata saar la da nga naan nekk na téeméer ak fukki saar ak ñeent waaw ban saar ci gën a mag ndax baqara la ndax al araf ndax isra la déedéet saar bi ci gën a màgg mooy saar bu gàtt bi nga xam ne man ngeen ko seeni doom man ko bi fatihatul kitab mooy bi gën a màgg ci téere bi yàlla bi ëmb ay xam-xam yoo xam ni ku ko en peek sa àdduna dana jub sa alaxira jub yàlla na yàlla boole ñu ca mbokk fatiha liñ leen waxoon ci basmala ca mooy borom xam-xam yu bari ixtilaaf am nañ ci am nañu jàpp ne ci bis ci fatiha la bokk ba ñoom dañuy gis ne bu ñuy julli dañ koy tari ca kaw am ñu jàpp ne bokku ca donte ne tegtal yi nga xam ne moo gën a not insha allah day wane ne bismillah dañ koy ubbee saar yépp mais bokkul ci benn saar loo dul ci suratu naml kon fatiha mi ngi commencé ci alhamdulillah waaye almuhim yow jullit xamal ne booy jàng alquran bul fàtte wax auzu billahi min alsheitan rajim suñu noon bu mag boobu nga xam ne taxaw na ne yàlla la aqudanna lahum siraataka almustaqim képp ku jóg bëgg a jaar soo yoon danaa fexe dévier ko yàqal ko looloo tax loo jëm ci jaamu yàlla rawatina li nga xam ne moo lay ubbil di la niital fa nga war a jaar ba jaamu yàlla ngay jëkk muslu ci cheytaan mooy maa ngi làqu ci yàlla ngir mucc ci cheytaani mi nga xam ne dañ koo daq rëbb ko soril ko yërmande yàlla gannaaw ba nga ne bismillahi rahmaani rahim gannaaw ba nga dàqi cheytaan nga sukkandikoo nag fi ki nga xam ne dara du mën a sotti lu dul lam jàpp muy sa borom yàlla nga ne yaa ngi dimbindikoo ci turu yàlla mi nga xam ne suñu borom nee na tabaraka ismu rabbika zil jalali wal ikram barkeel na turu yàlla loo ko booleel mu barkeel kon booy lekk booy naan booy jëm ca wanag ba booy ànd ak sa soxna booy sol sa yére booy yëg ca oto ba lu mu mën a doon nga wax bismillah gis ngeen borom boobu subhanahu wa taala kon bu ñu delluwaatee ci alhamdulillah mbokk alhamdulillah li muy firi mooy mboole mi sant ñeel na yàlla jalla waala amul benn xéewal buy dem ci jaam bi lu dul ci yàlla la jóge wa ma bikum min ni'matin fa min allah léegi nga ne ah man kat damaa dajeeg fii sëñ njaay mu bokk ma 1000 francs mbokkoo sëñ njaay bi la bokk 1000 francs jaamu yàlla la yàlla ko wërsëgal 1000 francs am déet am na ku la gën a yéene sëñ njaay ci amul lum la jox yàlla tàggat xolam def ci ne joxal muudu sekk mee 1000 francs loolu xéewal la gu yàlla jaarale ci moom mu jëm ci yow looloo tax ba da nga ko sant gërëm ko ndax yonent bi alei salaam nee na ki leen defal njëkk ñaanal leen ko sant leen ko waaye nag boo jàddee kon da nga ne ah alhamdulillah mi ma dajaleeg sëñ njaay ba mu jox ma 1000 francs am déet loolu it naka noonu mboolem sant yi doomu aadama di santante seen biir yàlla moo ko yeyoo moom it moo sant boppam jalla wa ala moom it mooy sant ay jaamam ci xéewal gëm leen di sant moo ko def moo leen baaxe ban am xéewal jaamu ko ci mu wëlbati ko sant leen comme nam sante woon daawuda nicma al abd innahu awwaab ila axiri kon alhamdulillah mooy moo mi sant ñel na yàlla kan mooy yàlla yàlla moom mooy rabbu di rabbil alamin mooy rabbu rabbu mooy kan mooy ki bind mooy ki moom mooy kiy taxawe ñu ngi noonu yàlla bind lépp yàlla moom lépp yàllay taxawe lépp mooy rabbu alamin mooy kan mooy mboolemi mbindaafan malaaka jinne nit bàyyuma gàncax montagne asamaan suuf lum mën a doon mooy rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma mooy rabbu kulli shay'in lépp lu mën a doon yàlla moo ko moom loolu nga dégg ci ne kon leneen lu dul yàlla jaamu bi yàlla la am déet rabbil alamin ah waaw yàlla mooy ki buur bi bind bi moom ah waaw moom la ñuy ay melokaanam suñ boroom jëkk indi yërmandeem ndax xam ngeen ne yàlla yërmandeem mooy li gën a not ca la nga xam ne nii mooy ay mbugale mi mbugal ay jaamam moo tax mu ne mooy rabb moo tax muy teg ci ne arrahman naam ci yërmandeem la la fekk yow doomu aadama nga nekk benn spermatozoïde boo xam ne ay laboratoire doo nga la mën a gis mu jël la ci yërmandeem di la sàmm ba def la alaqa mudra roof la yax génn la nga doon ab liir boo xam ne des milliards de milliards de cellules moo la composé lépp jaar yoon arrahman moo jaar foofu am déet waaye itamit mbokk muy arrahim ka nga xam ni yërmandeem da koy jagleel jaam ya nga xam ne ñoo ko gëm di leen xéewal àdduna comme nam leen di xéewal alaxira xéewal gu amul fu mu yem amma yërmandeem ci ñeneen ñi moom mi ngi yem ak ñoom ci àdduna amma alaxira da ngay gis dana jagleel jullit ñi yërmaande gu amul fu mu àpp kon arrahmanir rahim borom boobu di wone it ne ni mu nekke rahman la nekke malik la nekke malik doon aji moom muy wone ne borom kattan la kilifa la goo xam ne doomu aadama yi dañ ko war a déggal muy wone ne mbokk diine ci ñaar yi la taxaw alxawf wa raja ragal yàlla lu tax mooy almalik mooy almalik waaye yaakaar yàlla lu tax mooy arrahmanu rahim ci lii la doomu aadama di jaamoo yàlla heure boo demee ba sa xol génn ci yërmande yàlla yàqu la nga heure boo demee ba jàpp ne yàlla léppam yërmande la comme li ko yenn nit ñi di waxee le tout miséricordieux un point un trait ku yàlla du mbugal ay jaamam su boobaa yàqu la nga moo tax mun nañu mooy malik yow mi diin mooy malik bi boroom bis ba nga xam ne dañuy fay jaam yi waaw ndax bis bi da ko moomul ah kay moo ko moom waaye àdduna ku nekk ngi xëccoo la mu moom mi ngi noonu borom portable bi nee na maa ko moom borom kër gi nee na maa moom borom oto bi ne maa moom am na sax kuy jàpp ne moom moom réew mi amma suñu borom yowmal qiyama mooy yowma la tamliku nafsun li nafsin shay'a kenn du moom dara kenn du moomal kenn dara suñu borom dana lem asamaani suuf ne limanil mulkul yawm abdun na sellaw ñépp na yotte ci kanamam yeneen takkudul yeneen malaaka ak jinne doomu aadama kenn moomul dara mu ne lillahi alwahid alqahar yàlla kese mi not lépp loolu tax mooy borom bisu fay ba waaye mbokk mu lay jàngalit heure buy jàngal quran di wax yàlla yaay borom bisu fay ba ah kon war ngaa góorgóorlu bokk ci ñooy fayu de am déet moo ko alaxira mooy bisu fay du bisu liggéey la nga xam ne moom nga fa yóbba keroog lañ la koy fay lu baax la keroog nga koy gis lu bon la keroog nga koy gis muy wane ni doomu aadama war naa góorgóorlu jéem a fexe ba ak payooram ëllëg gi si biir mu daal di koy bàyyi xel xam ne bi nga xëyee ba baa ngay dellu sa kaw lal amul lenn loo fiy def lu tal ni misqaala zarra lu dul pay ba mi ngi lay xaar alaxira maliki yu mi diin gaa yi nag yàlla mi nga xam ne moom nga tagg na yàlla day mbooli mi cant yi yaa ko moom yàlla yaay borom yërmande yàlla yaay aji moom bisu penc yàlla yow moomu dong lay jaamu gis nga waxoo naabudullah waaye da waxoo ne yàlla dañuy jaamu yàlla waaye da ngaa jiital iyaaka yàlla yow kese yow kese naabudu waxoo it aabudu waxoo yàlla yow lay jaam waaye da nga naan ñun yow la ñuy jaam te mooy da ngaa gëm ne mboolem waa asamaan waa suuf ñépp ay jaami yàlla lañu subhanahu wa taala ñépp ñu wommatul yàlla lañu subhanahu wa taala moo tax nga ne iyaaka yàlla yow kese naabudu la ñuy jaam waaye mbokk doomu aadama bi bëgg bëgg nga am waaye lu sotti ci yàlla la jóge looloo tax nga dolli ca ni yàlla iyaaka yow kese kese nastainu la ñuy dimmini ko borom xam-xam yi dañ ne mboolem diine yi masa wàcc ci kaw suuf suñu borom yàlla tënk na ko ci fatiha waaye mboolem fatiha mi ngi tënku ci aaya boobu iyaaka naabudu wa iyaaka nastain iyaaka naabudu mooy liy jóge ci jaam bi ci jaamu ci kan la jëm ci yàlla kese iyaaka nastain li jaam bi yaakaar ñu dimbi li ko ca ca mooy dàqal ko lor ñoddul ko njëriñ ci kenn rek lay jóge muy ci yàlla iyyaka iyyaka dégg nga noonu iyyaka na'budu yow kese la ñuy jaam iyyaka nasta'in yow kese la ñuy dimbali ko julit du jàq mu ko ba ne yaa muhammad rasulullah julit du jàq mu ko ba ne yaa abubakar wala yaa cheikh wala yaa sëñ diw julit bu ko def rek ku riiri diine la ko xamul diine la waaye julit dëgg yaakaaram njàqareem woowalloom lépp lu mën a doon ci kenn rek iyyaka nasta'in yàlla yow dong la ñuy dimbali ko gannaaw loolu nag maadaama yàlla ngay dimbali ko kon yàlla rek ngay ñaan can kay ñaan nag ñaan gi nga xam ne mooy li ëmb mboolim yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira mboolim yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira mi ngi tënku ci nga ne yàlla ihdina siraat al mustaqim yàlla jubal ñu ca yoon wa nga xam ne mooy yoon wu jubba ihdina muy ëmb ñaari mbir mooy la nga xam ne mooy hidaaya boo xam ne nii day doon irshad ay yàlla xamal ma naka lay tegewoo ci yoonu siratul mustaqim yàlla xamal la loolu ndax yoon yi bari na ñii ngi ne fii la ñii ne faala ñii ne fële la ay yàlla boole ma sa jaam yi nga xam ne da nga leen di xamal ban yoon moo jëm ci direct ca ca benn yoon rek la benn yoon kese la loolu tax yonente bi alayhi salaam daan yow xaaju guddi daan wax allahuma fatir alsamawati wal ard alim alghaybi walshahada rabu jibril wa mikail wa israfil anta taxkumu bayna ibadika fima kanu fihi yaxtalifun ihdini lima xtalafu fihi min alxaq bi iznik innaka tahdi man tashaau ila siraat almustaqim yàlla yaa bind asamaan yeeg suuf yaa xam kumpa ak lu feeñ yaay borom jibril mikail et yàlla yaay atte say jàmm ëllëg ci seeni jëyoo yàlla nag ma teg ca yoon wa nga xam ne mooy lu jub ci juwee bañ joyoo loolu mooy njëlbeen bi waaye gannaaw ba nga xamee nag ndax xam yoon bi doy na déedéet am na nag lu ñuy tuddee hidayatu tawfiq mooy sunu borom yàlla nag déppale la nga tega ci yoon bi ba dee ca yoon wa yàlla na yàlla defal ñu ko loolu ngay ñaan ihdina sirat mooy xamal ñu yoon bi jàppale ñu teg ñu ci ñu tege ci ba baa ñu ci dee yoon boobu nga xam ne ma ngay fin ca siraat ba jàll ca kaw sawara ca ngay jaar ci àdduna ba ba ëllëg nga jéggi siraat loolu lépp moom ngay ñaan alhidaaya muy yoon boo xam ne nii suñu borom moo ko tàggat benn ay wàjj amu ci comme nañu leen ci bale sam doon wax layluha ka nahaariha kenn du jeng yoonu siraatu mustaqim lu dul ko nar a alko léegi nag ñaan bi ngay ñaan ihdina siraatal mustaqim ndax yow da nga koy tënk rek ci ne pour yàlla xamal ne ibadat yi déedéet ihdina siraatal mustaqim yàlla day sama warugar ak samay wayjur ihdina siraatal mustaqim ba ma xam nu may jëflanteeg samay wayjur yàlla ihdina siraatal mustaqim ba ma xam nu may jëflanteeg sama njaboot ihdina siraatal mustaqim ba ma xam nu may jëflanteeg samay dëkkandoo ihdina siraatal mustaqim ba may xam nu may jëflantee ak yéeféer yi baba lépp jëflante jeex amul lu nekk lu dul jaam bi dafa war a ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla wan ko la jub ci mbir moomi te nga noonu lépp nga sukkandikoo ko ci sa borom jalla wa ala borom boobu nag subhanahu wa taala ne mooy sirata alladina anamta alayhim waxul sirata almuminin waxul sirata alanbiya waaye yow na ña nga xiiwal ci ñoom mu lay xamal na ña tege ci yoon bi yàlla leen xiiwal am déet du seenug juddu du seen xam-xam du seen dara xéewalug yàlla la waaye ñooñu yàlla xéewal mooy ñan yàlla wax nañu ko ci téereen أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين mooy yeneen yi nga xam ne ñooy nekk tête de liste ca ñooñu yàlla subhanahu wa taala jubal loolu moo tax baalu quran fees dell ak qisasul anbiya wax la fan la yeneen yi jaaroon naka lañ muñi woon naka lañ doon jaamoo yàlla ak yi deme noonu loolu ngay ñaan sa borom subhanahu wa taala mu lay jàngalit ne doomu aadama war nga foo mën a toll di xenc ñu baax di jéem a mel na ñoom mu safaanoog ak ñi ci tey nit yi tey dañ naan man day wóolu naa Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye de moom wóolu naa ko àdduna ak àllaaxira jeex na dénk naa ko say mbir waaw gars yi Serigne Ndiaye bu baaxee fexeel baax na Serigne Ndiaye am déet ndax loolu lañu yàlla wax teg ñu ci yoonu yoon bi ñu jaaroo waaye yow nga jàpp ne diw baax na rek kon léegi doyloo nga ko àdduna doyloo nga ko àllaaxira mbokk njumte munta passé loolu gis nga diw moom ni nga juddoo rek la juddoo nit nga muy nit yàlla bind ko pour mu jaamu ko yow yàlla bind la pour mu jaamu ko effort ba mu def ba xam jaamu yàlla defal effort bu mel noonu jaamu yàlla jéem a jaar ci ay tànkam jéem koo roy bu dee ne yow yeggoo fa mu yegg it quand même na nga jaar ci yoon bi ba dee ci yoon bi rek mbokk mbir mi du yegg ca but ba waaye mbir bi mooy teg ci yoon bi dee ci yoon bi lii rek la la yàlla sant am déet waaye kenn du dem ba ne maîtriser nga diine xam nga ko à 100 pour cent déedéet waaye foofu toll del xentu dëgg di jéem a góorgóorlu ba ba dee ci loolu rek jeex na sirat allazina anam taarihim waaye ndekete sirat boobu it am na ñaar yu ko siq ñaar yu ko siq mooy ñi nga xam ne jàng nañ yoon yi wax ba xam ko waaye lank bañ caa jaar dañ ko doon firi al yahud waaye ba ila yawmi din bépp julit bi woote woo julit nga dégg ñu ne moom kat demoon na dëkk arab yi jàng mu lay làkk alxuraan ju leer sunna bu leer waaye nga gis ne moom ma nga topp ay bànneexam kooku ci ñi ñi ñi mere la bokk du yàlla rek leen mere yàllaa ki malaakam ak képp kaay bu baax moo tax su wax waxuñu ne yàlla ñi nga mere yow waa dani ñi ñi mere loolu ñu bàyyi ci xel bu baax te léegi nga dégg waa ji wax njaaxum ñu laa moom de ko jàng la ah kay mooy almaxdubi alayhim jàng nañ ba xam ba ñu ko jëfee amma wala daalin mooy ñan mooy ma riirandoo yi xew bu am ña nga jóg gaddu cin yaag peel yaag yat yaag mais jànguñu dara ci seen diine jàpp ni diine yépp barkeelu la loolu amoon na ca nasaraaniya ñoom lañ ko doon wax jamono jooje waaye ba ilaa yawmi diin képp koo xam ne bëgg naa jaamu yàlla te jaarewu ko ci jëkk a jàng ba xam lan la yàlla wax ak moom kooku min ad-daalin la bokk loolu tax ngeen xam ne seen jataay bi jataay la boo xam ne da ngeen cee war a góorgóorlu ñaax ci seenu njaboot ak jataay bi mel na moom ngeen xam lii la yàlla wax ak yéen lii mooy sunna bi yàlla wax ak yéen ngiree nga mën a jaamu yàlla ala basira ci loo xam ne nii mbir la bu leer loolu mbokk dañ ciy gis ñoo bàyyi ci xel bu baax donte ne ne tamit fatiha boobu heure boo xamee ne nii jàng nga ko ba pare war ngaa wax amin amin mooy yàlla yàlla na nga nangu heure boo xam ne yaa ngi ca jàkka ji di ko jàng ci gannaaw imam yi leen ci binee na bu imam waxee wala dalil malaaka yi dañu ànd ak moom ne amin ku yàlla dëppale sa amin ak malaaka ya sunu borom yàlla dalay nangul mbokk li mooy fatihatul kitab bi nga xam ne dafa nekk farata ci jullit bi ci jullit bi mooy nga jàng ko fukki yoon ak juróom ñaar ci bés bu nekk loolu it moo tax ba jàpp nañu ne lii ñu ci wax ni doomu aadama yi daan ko bàyyi xel bu baax nga maîtriser woon fatiha wallahi da ngay gis ne moo gën ci yow nga maîtriser woon desutu alxuraan bi yépp ndax desutu alxuraan yépp mën ngaa dund ba dee doo ko tari fatiha nag farata la ci yow ca mbokk alhamdulillah lii de aw jiwu la waaye jiwu ku ne xam ne la muy meññ moo gën a màgg loolu loolu it moo tax ñu ngi fàttali ne yàlla yombal na tey ak yombal ca mooy wàllu informatique bi bi suñu borom di wax allazina yuballighuuna risalatillah ñiy jottali kàddug yàlla gi tey jii mën nañu wax borom xam-xam yi buñ ci joué la nga xam ne mooy 1 pour cent 99 pour cent bi tey ña ko gën a joué mooy ñi nga xam ne ñooy taxaw di tasaare loolu xam leen ne mboolem tafsir yi ñuy mas a tafsir fii ci at yi mujj yi na doon tafsir rawatina yi mujj bi bu 2010 2014 bi bu 2014 2017 bi soo dellu woon ci situ xam sa diine wala nga dellu site bi ñu tuddee xam islam point com la nga xamee ne nii mooy sunu mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo koy taxawee ñi ngi ñi gënoon a nekk sës ci ñun naam ka ko ubbi woon mooy suñu mbokk bi Mouhamad Lamine Signaté ba bàyyi fii ki nga xam ne moo nekk seen gannaaw di Aboubacar Sarr ñoom da ngay gis ne bokk nañ ci ñi tasaare loolu ci sit yooyu heure boo demee fekk fa darsi yi yëpp darsi bi ñu def tey jii boo demoon suba incha allah fekk ñu def ko fa am na ñeneen nit ñoo xam ne gën nañoo dem ci wàllu vision bi ca bokk na ci sunu mbokk bi di abu salimata bi nga xam ne moo fi teewal nii ñii di deuxième vision nga xam ne ñoom it benn mbooloo la boo xam ne gannaaw bi fi yenn chaînes yi jaaroon lu mel lay sunna tv ak yeneen ñoom ñi ngi nekk di jëflante ak mboolem station islamique yi nga xam ne ñi ngi nekk ci Sénégal ci di leen filmil ay waxtaanu diine di leen ko yóbbu pour ñu tasaare ko yéen ndaw ñi képp ko ci dugg ci YouTube wala ci Facebook bi boo defee des jeunes vision da ngay gis ne seen liggéey mi ngi foofu ñoom ñëpp liñ leen di ñaanal mooy yàlla yàlla subhanahu wa taala jàppale leen loolu mooy mbokk tënk bu ndaw buñ doon tënk ci suratul fatiha ni ngi noonu Cheikh Ali ñu jël ci alif lam mim bi